on va retrouver euh, Sophie euh, chez elle dans sa cuisine restez chez vous et cuisinez loolu la Sophie woote Sophie ñu ngi lay nuyu na nga doxale maa lay fay Baye Cheikh xanaa namb la rek. loo tegati sa kanam nii li ay xeetu bong bongu lan la. Baye ay xeetu baax baax rek yoo xam ne pour confinement bi la rek Baye Cheikh. yàlla la yàlla la fal cat yaa saf loxo. ma merci beaucoup Baye Cheikh. alors qu'est-ce que tu proposes aux téléspectateurs. ba Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi xarit di ñu seetaan nag comme ni ñu koy defee fan yi rek di euh, conseiller ñëpp ñu toog seen kër. man nag euh, maa ngi nii sama biir kër nag euh, Baye Cheikh tey li ma defar nag euh, ay pancake laa defar ah, pancake yi ma def au chocolat defaat quelque donuts à côté defar aussi nag benn jus boo xamante ni Baye dafa baax le matin nga jël ko da ngay am un peu plus de tonus ndax ay agrumes rek laa boole ku ne agrume xam na ni Baye Cheikh ni dafa baax ci suñu wérgu yaram déjà rek ñu ñëw ci li nga xam ne mooy pancake yi nga xam ni moom laa andi tey très simple. très facile à faire doo ci am bay cher benn complication te cherul aussi pour nga defal ko sa kër très rapidement ndax laajul moyens yu bëri déjà li ma ko defaree mooy euh, deux cent cinq grammes de farine laa utiliser quatre cuillères à soupe de sucre euh, fleur d'oranger essence vanille a jël li nga xam ne tamit euh, mooy nen ak les concentrés non sucrés moom laa utiliser comme ingrédient pour nga defar ko nag bâche ya comme li ma wax euh, c'est très simple déjà moom da ngay jël rek li nga xam ne mooy jaune d'œuf bi ak sucre bi nga njëkk a jël bâche ya nga battre ko ba am benn crème boo xamante ne ni moom nga soxla soo paree nga jël li nga xam ni mooy un demi litre de lait concentré non sucré daal di ko ciy sotti boo ko ci defee nag da ngay nga soog a jël li nga xam ni mooy farine bi soo jëlee farine bi sotti mélanger ko ci ba am benn pâte bu compact parce que moom dafay laaj nga defar benn euh, pâte bu compact jarul ngay bàyyi bi di euh, di fluide parce que bu fluide day mel ne ay crêpe moo tax dafay laaj pat bi compact soo ci defee farine bi mélanger ba pare bàyyi cheikh nga jël euh, tuuti beurre soo jëlee bër bi nag euh, baay def ko ci euh, bu la neexee soit am na ñoo xam dañuy def levure am na ñoo xam duñ ci def levure mais man de préférence dama comme que jaune bi laa utiliser damay jël blanc bi ma monter ko en aile su ma ko monter ba pare ma jël blanc bi sotti ko ci yëngal ko nànk rek ak benn cuillère en bois nga xam ne dalay permettre nga am benn pâte bu nooy boo xamante ne ni boo ko lekkee doo am ay problème ballonnement ak yooyu soo paree nag da ngay jël sa benn poêle euh, sa benn poyel adhésif boo xamante ni du collé nga daal di koy teg ci gaz bi def euh, benn noisette de beurre bàyyi mu fond bu fondre rek nga jël sa benn luus tibb tuuti def ci poêle bi soo defee ci poêle bi euh, côté bu nekk moom cinq minutes lay kii mu daal di ñor nga daal di jël rek teg à côté jël la soit yaay xool c'est au choix soit nga jël confiture wala nga jël chocolat wala bu fekkee pancake yoo xam ne salé la mën nga soit def benn. œuf sur le plat def fromage ci kaw pourquoi pas nga am tuuti jambon émincé ba mu sew rek sànni ci kaw ak quelques poivrons rouges wala tomate pour euh, génne couleur bi mu accompagner li nga xam ne mooy say pancake loolu nag li ma wax sànq Baye Cheikh bu dee pancake euh, salé bi la mais bu dee sucré bi confiture lay laaj wala soit chocolat wala rek boo bëggee nga lekk noonu nature ak euh, benn taasu thé wala benn taasu café au lait pourquoi pas déjà tamit ñu ñëw ci. Hmm, donet yi nga xam ne moom laa defar ni tey Baye Cheikh moom tamit donet yi yëpp ci xeetu petit déjeuner la donet bi nag tey dama ko defar au lieu may jël farine normale bi dama jël euh, li nga xam ni mooy euh, dugub bi dugub bi laa jël boole ko ak euh, farine bi bi ma ko jëlee nag ba pare ci laa jël soit équivalent bi dafay toll soo defee cent cinquante grammes de farine farine de blé da ngay def cent cinquante grammes de farine de de mil moom ngay jël mélanger def grammes de sucre euh, bu dee nag euh, bu dee trois cent grammes comme man li ma utiliser ñaari nen nga ciy def benn sachet levure chimique ak li nga xam ne mooy un peu d'eau tiède beurre euh, muscade fleur d'oranger comme li may wax toujours rek ak eh, essence vanille soo neexee mën nga ko remplacer def ko koko mais nag man euh, fleur d'oranger bi rek laa jël ak vanille bi moom laa defaree li nga xam ne mooy euh, donnet yi déjà gis nga ñu étaler ko bàyyi pat bi nag mu reposer une de temps nga jël sa benn rouleau pâtissière ci sa biir waañ rek nga nettoyer plan travail ba mu set daal di jël sa rouleau pâtissière euh, defar ko ci ba mu baax nga jël sa benn emporte-pièce soit yaa xam loo am sa kër verre wala benn kopp rek nga daal di jël defar ay forme mën nga defar ay forme de cœur mais man tey ba Cheikh euh, dama ko def sous mu de rondelle ma pare nag ma defar benn sirop de sucre def tuuti ko ko ci kawam revenir ko ak moom mu jox ma donat yi nga xamante ne moom laa am fi de l'autre côté bâche fi naka ma am euh, jus agrume bi ma la doon wax sànq yi nag euh, baay dafay baax ñu di ko jël parce que dafa baax déjà pamplemousse laa jël ak euh, jinjeer moom kese laa jël mais nag au lieu ma ci def sucre dama jël ñaari kuddu leen rek daal di ko ciy def moom laa ko suukaree jël feuille de mant bu frais bi comme te xam nga ni ñun fii gàddaay la ñu dëkk da ngay dem ci tool yi rek dagg say ñëw utiliser te doo ci am benn complication bàyyi comme li ñuy wax rek lépp loo mën a jël rek euh, ci biir waañ bi comme que temps yi nag euh, ñu ngi wax chaque jour di sensibiliser nit ñi pour ñu bàyyi xel ci ñi togg parce que keroog wax nga ko Baye Cheikh euh, waañ bi mooy laboratoire bi li ci xas ba génn rek dugg ci biir bi pour mu génnaat dafay doon problème Baye Cheikh ñu bàyyi xel ci. xeetu ñam yi ñuy togg bu dee ndawal la nga togg ba mu ñor bu dee jën la nga togg ba mu bu dee nen la aussi soit omelette wala baxal lépp dafa war a ñor bàyyi cheikh légumes yi aussi ñuy raxas ba mu set soo amul vinaigre soo amul eau de javel jëlal vinaigre blanc def ci say légumes bàyyi mu trempé le temps que ngay ñëwaat fekk microbe yépp dee bàyyi cheikh nga utiliser te du la andil benn gàllankoor bàyyi xel ci bëggaj la nekkoon tey ceebu keccax bu baax euh, euh, bu am euh, koŋ bu xonk ak ñebbe bu bëri am am yoxos am tuuti tuufa. sama xel ci la ne. waaw ci la nekk tey. waaw crevette bu dijj bi nag. bu tooy wala bu wow. bee ma gënal bu sew bu sew bi. mooy bu sew bi ngay daj ci biir muy réer ak a mag la ma amatuma bëñ. <laughs> lool daal laa bëgg nga toggal ma merci Sophie il est ñu ngi lay gërëm bu baax et bon